السلام عليكم ورحمة الله بوكي نيو لاني دلين زيار إلين بالو حق دلين بال نيان برم سبحانه وتعالى بولي نيو جغل نيو المسألة رقم خمسة وخمسون نيجانغ القسم الثالث من الأسباب التي تنقض الوضوء فأبينك دنيجانغ بيا خمان تنقض آه، آه، الوضوء غير أحداث ولا أسباب نوعان نياري نياري نوع له النوع الأول الردة وهي الكفر بعد الإسلام وهي تنقض الوضوء النوع الثاني الشك وهو وله ثلاث صور الصورة الأولى وهي الشك في المانع وذلك أن يشك المرء بعد تيقنه بتقدم الطهارة هل حصل منه ناقض من حدث أو سبب أو لم يحصل والمشهور في المذهب في هذه الصورة أنها تنقض الوضوء لغير المستنكح الصورة الثانية وهي الشك في الشرط وذلك أن يشك بعد تيقن الحدث هل حصل منه وضوء أم لا ففي هذه الصورة ينقض الوضوء ولو للمستنكح أي لكثير, لكثير الشك الصورة الثالثة وهي من الشك في الشرط أيضا وذلك أن يتيقن الطهر طهر والحدث ويحصل له الشك في سابق منه فهذه الصورة أيضا ينقض فيها الوضوء ولا للمستنكح li nga xam درس جروم suñu جروم juróom fukkal juróom fukkeel ak juróom te du toj te du sobe bokk na ci mortat ak sikki sàkka moo xam jàpp na wala jàppul wala njàppam dafa toj wala tojul wala jot naa yeesal njàppam wala déet ki jàng mooy fiq al ibadat yàlla mooy ki kawe xam lépp bu ñuy dee tënk suñu darsa tey day jàngal ñetteelu xaaj yi nga xam ni moo ñëw ci yi nga xam ne moom lañ doon jàng ci toj yi ak sabab yi yàq njàpp yi nag duñu ay toj duñu ay sabab fam ay xeet bokk na ci murtad nit bu génn ci lislaam dogu ci bu dee yeesalaat ak ak tuubam day dem jàppiwaat njàppam dafay yàqu loolu day yàq njàpp bokk na ci sikk sàkk sikk sàkk googu am tamit ñetti façon ba ca njëkk mooy sikk sàkk ba xam ne waa ji dafay sikk sàkk ginnaaw bi mu amee lu ko woor waaye bi mu amee lu ko wóor sikk sàkk dab ci ndax njàppam dafa toj wala tojul kooka njàpp loolu dafay yàq ñaareelu melo bi mooy dafay sikk sàkk ndax moom euh, dafa am lu génn ci moom wala déet kooka njàppam dafay yàqu ñetteel bi mooy def ko wóor ni laab na waaye sikk sàkk dab ko ci diggante bi ginnaaw bu mu amee ko woor même bu fekkee ne koo xam ne ku tax ko sikk sàkk la sax dana jàpp loola dafay yàqu ak ki nga xam ne dafa nekk ci biir julli di julli ba si yàgg e, sikk daal di koy dab ndaxam moom bi muy julli yar na njàpp wala deet bu fekkee ne nekkul ko am feebaru sikk sàkk kooko day arrêté julli googa mu dem yee salaat njàppam dal di ñëw julliwaat bokul ak nag masala bi bokul ki nga xamni sobe do ko tak waaw lolu bokul koko mo ngi ci kanam incha allahu taala bu ko defee yooyu mooy yi nga xamni da fay yàq njap to bokul ak toj bokul ak sabab lolu moy suñu dar sa yal na yàlla defal deg ak top ko ci am lu mi laaj man nako tapé ci ayna ma TV buñ ko xamé danañ ko tont incha allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa allah wa astaghfiruka wa atubu ilayk wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh